asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Safo GP TV Sénégal amaan nañu mbégte bu baax a baax ginnaaw waxoon nañ leen ñu ngi fi nga xamante ni mooy dëkk bu sell bi di Touba tey nag ñu ngi fii si garage bu bees bi fi nga xamante ni ñuy jaay péage ñëpp booy xool ñu ëpp su ñoom garage bi la ñuy wàcc muy garage bu bees bi pour jël oto wala saret dem fi nga xamante ni mooy seenu dal tey nag GP TV Sénégal ñoo ngi fi di xool si ñi nga xamante ni ñooy gan yi nga xamante ni ñoo jóge dëkk ak dëkk ñëw fi nga xamante ni mooy Touba Mbacké ba xam coono yi ñu daj si yoon bi métti na wala méttiwul paas yi nga xamante ni yokku nañ ko paas yi na wala seeru comme fi nga xamante ni mooy Touba nemeeku na ni paas dafa seeru loolu même boo wàccee garage bëgg a dem fi nga xamante ni mooy fi ngay dal dangay paas dafay bayu loolu dafay seeru loolu ba sax instant bi ñoo ngi koy joytu bu baax a baax waaye tamit mënut a ñàkk na bisu sëñ Bàmba la daal lépp loo fi lépp lu fi waay wax lépp tamit loo wax ni loolu mooy paas bi taalibe yi ak mbokk yi ngeen ko paas ndaxte suñ bàmba rek moo leen ko jaral mbokk yi dañuy dugg si biir garage bi xool gan yi naka la ñuy wàcc fi nga xamante ni mooy Touba waaye daal wax leen ne leen fii si Touba moom jamono ji fees na dell dell dell te ginaa suba nag la màggal waaye it suba tamit du ñàkk ni nit ñi gën a dikk bu baax a baax a baax topp leen GPTV Sénégal maa def sama cadre Galaye Diaw dugg si biir garage bi xool ñi nga xamante ni ñooy euh, gan yi naka la wàccee fi nga xam ne mooy Touba topp leen. waaw gi de moom dañ koy waat ki nga xam ne moo ñu tax ñuy jóg da xam ne tey lu ñu am lépp rek moom moo tax bu yàlla dogalee ñu quitté Sénégal dem ba bi yàlla laak Sëriñ Tuubaa moom moo ñu xalal aw yoon bu mën cee jaar man maay deuxième jëwriñ xidma jumaa ji dañuy jégalu nag ci kàddu yi bala ñoo yëkkati woon kàddu war nañoo sant Sëriñ Tuubaa santaat ko bu baax di jégalu ci tardement bi li ñuy wax anglais di ko wax dañoo loos ñu ngi ci jégalu baax ndax ar war nañoo fekk ci biir xidma bi ñu taxaw di xidma waaye ngi koy jégaluwaat bu baax di leen masal seen coono yéen yi nga xam ne yéen yéen ñuy jël mais euh, nga agsi tuuba fekk fi tàngaay bu metti lool xam naa am sa tamit wala am euh, oto bu la yóbbu jumaa ji sax xaw jafe waaw loolu gis na dox nañ gis nañ mi ngi amee ci dëkk bi pour nga am moto bu la yóbbu bu la yóbbu jumaa ji sax dafay doon euh, problème lépp rek borom Touba moo woote ki nga xam ne dafa dem wutil ñëpp pour ñëpp ñëw dafay metti pour ñu ñu mën a matale mu mën a mat moo tax dañuy ànd ak xel ànd ak dal ànd ak xol bu ñu àndee suñu xel ak suñu xool rek danañ mën a egg ci jumaa ji siyaare liñ bëgg ci bis bi yëpp suñu borom dina ko dogal mu am ñu am. tey jóge nga Gambie ak si nga Touba macha allah lan ngay wax sëfoo si pour ñu daw nag ndax diggante bi tey ak suba yoon bi lool dégg ma lan ngay wax sëfoo si lan ngay leen ñaax pour ñu daw nag diggante tey ak suba yoon bi day xat. waaw man maa ngi wax suma mbokki chauffeur yi sama mbokki julli sama mbokki taalibe nga xam ne tey ñoom yor waay di jël tout tànk yi di jël sunu yaay yi sunu umpaañ yi sunu nijaay di leen wax ne fépp foo xam ne dañu faa war a daw foti fépp foo xam ne dañ faa war a daw 40 nañ fa daw 40 bu mënee moyen 40 sax nañ ko fa daw leen lu problème yu bëri ñu ngi am fii da nga koy war a daw 40 yaa ngi fay daw 90 léegi buñ ne xëpp bala ngaa laal brique moto bi jàll na. kon ñu mën a war nañoo mën foofu di daw foofu def ndànk dal ndànk ndax ku tedd ki radiyallaahu taala anhu Sëñ Fall da daan wax na daw daw bu baax dal bu baax waaye daw ndànk dal ndànk kon nañ waat suñu xel bu baax ci trafic bi concentré wu ci code de la route bi bi ñuy sunu lii di ñu jox ñu concentré wu ci bu baax di wax wasalaamu alayna alal ibadillaahi saalihiina wasalaam métti na moom wax dëgg yàlla yoon moom métti na moom métti na mais nag eh, sëñ Touba jar na ko dëgg yàlla jaral nañ ko macha allah. paas yi seer na moom xam nga ko daan fay sept place quatre mille tey ngay fay huit mille. huit mille waaw huit mille lañ fay ñun ñu ànd ñëpp loolu moom métti na wax dëgg yàlla. ak tàngaay nga jaay wala. non non jaaruñu ab péage sax dañoo teggi ak coono bi waaw métti na moom dëgg yàlla mais nag sëñ bi nañ ko. doo ko ànd. waaw déedéet naa ak ñaar. waaw ànd naa sama benn tànta ak sama benn gis nga tàngaay bi nga fekk Touba. waaw tàngaay bi moom métti moom mais lépp nañ boole sant yàlla rek nga bi moo waral lii moo ko waral macha allah nañ sant yàlla daal ñaan ci yàlla jul Seydina Mouhamed sangu sangay ñaan yàlla màggal si jàmm salaam ñibbi si jàmm. mu bañ am benn ndog-ndog incha loolu la ñuy ñaan yàlla macha allah. tey tamit euh, ba fi nga jëm na sori sax mais nag amul benn problème yàlla baax na daal li ñu a yóbbu moom bu ñëwee dinañu yóbbu incha allah. mais basi seer na de seer yokku na li posé woon mbaa yokku na. seer na moom même posé yi la. comme noonu lañ ko gisee ñu jàpp rek macha démb Touba taw taw bu métti bi nga gisee ndox mi tiitoo woon avant nga ma woo ko mu ne ma Touba yaa taw euh, ma ne allah ndox moom xéewal la xéewal la macha allah ma la du ma la téye ndax dafa tàng waaye boo amoon leen looy wax safoo yi pour ñu euh, yoon bi ndax yoon mooy nañ daw ndànk ndax daw ndànk dal yoon bi xat na xat goo xam ne ko ci dawul ndànk moom mooy loolu daal nañ daw ndànk daw ndànk egsi ndànk ci jàmm ak salaam waaw loolu daal lañ leen di ñaax incha allah waaw sa boy waaw te ñu laabi daal te ñu laabirante daal ci maanaam ci ñu ne yef ak ñu ne la sëñ Bamba woo de jar na ko sëñ Bambaay Fay yàlla nañ ko teew ay déwén yu bëree bëri di ñaanal ñëpp xéewal yàlla am na ko mën na ko yàlla nañ ko defal ñëpp waaw metti na loolu nag waaye nag alhamdulilahi rabil alamin dina baax incha allah nu ngay waajal lépp teeru gan maa ngi waajal te gan ñëpp laay waajal teeru incha allah. waajal bi noo koy waajee da ngay waajal si ay berne wala si ay xasida wala si ay xasaayit wala lan. maa ngi leen di waajal ci berne yi di leen waajal ci xasida yi di leen waajal si samfal bi bàyyiwuma kenn na ñëpp ñëw incha allahu taala. lan ngay jox safoo yi pour ñu daw ndànk diggante tay ak suba ndax yoon bi xat na loolu instant bi. waaw ndànk rek ndànk moom méttiwul dégg na mag ñi naan ndànk méttiwul mais nak ku jël oto di ñëw yàlla na yàlla teg yoonu jàmm nga ñëw fekk fi jàmm delluwaat ci jàmm. loolu lay ñaanal ñëpp ci doole Cheikh Ibrahima Fall Lamp paas bi seer na yoon bi métti na tàng na macha allah doon si yoon bi avant nga ak si Touba ah ak oto yi xat moom xat na macha allah xat na trop sax yoon bi moom xat na dëgg yàlla xat na moom ñaata nga paas diggante Touba ah, ah, diggante xoox 5000 francs la paas 5000 francs oto bu ndaw milikaar waaw paas bi seer na moom macha allah seer na trop moom waaye sëñ Touba jaral nañu ko déedéet jaaruñu à péage yoon bi lañ jaar waaw waaw. Euh, ko bi nga àgsee Touba tamit dafa mel ni wàcc nga si gaz ba léegi amagoo loo yóbbu foo jëm. Eh, amaguma lu ma yóbbu xaar ni sareet yi kenn gisu leen xanaa oto yi te oto yi moom ba yegg waaw. xam màggal gi dina xaw a métti loolu na taw beeg nawet bi yooyu. waaw dina xaw a métti moom waaye sëñ Touba jaral nañu ko moom jaral nañu ko macha allah jaral nañu ko. lan ngay wax si yoon beeg ak dem ak dikk bi ni mu méttee jamono ji est-ce que jàppoo gën a gën a métti suba. ah suba moom xam naa moom dina gën a métti moom wax dëgg yàlla suba moom yoon bi moom macha allah. mais maa yoon bi amul benn accident bu fi am rek si yow. fa accident moom wax dëgg yàlla rombuñu fa accident waaw yoon bi moom oto yaa ngi daw ndànk xanaa ñiy wàcc yoonu suuf bi mais accident moom amu fa. ban dal ngay dal fan ngay dal si Touba. man maa ngi dal si jumaa ji kër sëñ Moussa kër sëñ mu Moussa laay dal Moussa naaw. maa ngi ne salaire dafa yokk ay 500 ngay paas bu àgg. waaw loolu loolu laa doon laajte léegi loolu lañ ma wax nee na ma 500 ngay paas saret yi dañoo yokk oto yi dañoo yokk. may wax si lool a ah, xanaa rek nañ kii rek sëñ Touba daal lañ yaakaar sëñ Touba yàlla nañu ko jox rek waaw. am nañu ko waaw kay jërë ngeen jëf yéen tamit yal na leen yàlla jàppale sutura leen bu baax a baax a baax seen liggéey bi yal na barke waaw kay merci nañ de ndax jaaruñ ci appuyage bi si suuf lañ jaar mu xat ba dee ñii nii doog a yegg si la moo tax jaaroon péage da ngeen a fayul lu mat wala fay nañ la lu mat kay ndax dix mille lañ ñu fayaloo fay nañ dix mille déggante Thiès Touba jaaro péage bilaay jaaruñu péage loo jàpp ne moo wala safar bi jaaro a ah rek ndax doo fayloo nit ay xaalisam ba pare di ko taaloo kilim defoo dara jaarloo ko si suuf fu ne nga dugg fa toolu jàmbur yëpp nga yàqu. sonn ngeen de. sonn nañ trop gisoo suñu kanam nu mu demee. <laughs> mais agsi nga Touba nag fekk fi tàngaay bu metti waaw Touba tàng na trop mais xam naa xataay bi rek moo tax ak gan yi tax mu tàng. waaw fi ngay dem si Touba sooyul. xaw naa xëcc tuuti si xaw ba laa jëm. si xew ba. maa ngi leen di oto yi dañoo yokk poso mbaay dañoo yokk saret dafa yokk. loolu la ñu wax di poso mbaay san da nga doon fay 200 dem réew mi naa de. métti na quoi. métti na trop. léegi tey ah, looy wax safoo yi ginnaaw suba moo des si yoon bi te yoon bi instant bi mu ngi xat tey boo amee message booy lancé pour ñaax leen daw ndànk lan lay doon. ah safoo yi di leen wax ndànk daw ndànk mooy loolu ndax yoon bi dafa xat trop te ñu jéem a wàññi paas ñun sonn nañ trop nañ daw ndànk daal. waaw ah, mais euh, sa màggal nan nga ko ah, doon préparé. waaw doon di gis la nga yow sa sinap sinap lii moom ñi ko ñëpp dañuy sinap sinap moo leen indi Touba yow est ce que sinap moo la koy indi. sinap eh, indi liggéey si. loolu liggéey si yow. ah yor togg gi mbana yel man lañ koy jox ma togg yàq te sañ sa jotee moom naa sañ sa tamit. yow ku la togg moom ni ko sa exee yow yow yow da ngay sañ sañ moo la indi Touba ak sinap. togg moo fi indi damay togg yàq. yow loo mën a togg yow a ah, mën naa togg ceeb mën naa togg tufe lu jigéen di mën yëpp mën naa ko. ba Touba ba li ñuy bañ yëpp ba am koy maytu bu baax. waaw ah, maa ngi koy maytu bu baax de moom. gaa yaa ngi côté bii de. gaa yaa ngi côté bi garaawul man defuma be daray danger yiw naa. xepp ah. ma defuma dara. chauffeur bu ñu indi daa teggi yoon bi yëpp mooy loolu daal. waaw dafa xat quoi dafa xat yoon bi wala. waaw yoon bi xat na trop trop sax yoon bi moom xat na. jërëjëf yii paas moom cher na trop presque dix mille lañ paas. dix mille euh, lañ paas. mais ngeen loolu du yoon. ah du yoon moom. la <laughs> ah, moo tax ngeen tamit gasoil bi moo moo yokk loola tax ñu yokk paas yi. waaw ah, loolu la ñu wax gasoil bi moo yokk loolu kenn mënu si dara mooy loolu. nañ ko wax état. <laughs> nañ ko wax état. yow tey boo moom lay wax état si loolu lan lay doon loo koy wax. ah xanaa mu wàññi gasoil bi rek. comme nee nañ pétrole génn na mooy loolu di gën di seer ah nga xamante si si bari demul. léegi jaayoo péage bi mu métti lool yow loolu amul taal taal la ñu lay clim tamit. billaay paas dix mille jaaruma péage mooy loolu. oto bi amul clim tàng ba bëgg a dee. fi tàngaay bu gën a tamit looy wax si ah ñun moom xam nañ Touba moom coono rek la parce que sëñ bee ko liggéeyoon moo tax waaw moo bu ñëwee moom foo ñu daj ko rek yaa ma gën mooy loolu. nga jëm sooyul. waaw non non fu may jëm soriwul moom Daaru Marnaan rek laa jëm fii nii. mais bàyyi nga ni na posoo maa yokku na man kay xam naa léeg-léeg mais lépp bi jar na ko rek waaw. mais yokku bi du yoon de wala yow ànd nga si. bi du yoon wala yow ànd nga ah du yoon moom waaye tamit luñ si mën bu loolu bu ñu sareet bu ñu fayee ko woon 10 000 dañ koy def parce que sëñ bi mooñ ko jara waaw. nan ngay waajalee sa màggal. ah man sama màggal bu koy waajalee dem. dugg si waañ bi togg togg yi man ñëw ma pour ay sinap de. loo loo may njëkkantaloo quoi xam nga ne yow. Ah, da ngaa jëm yaakaar ne xale yu jigéen yëpp mooy loolu ñëpp a yem man meluma noonu dugg si waañ bi de bu ñu paree na sangu ba set sinap nag. mais lu mu xat-xat moom ni ngeen laal sinap. waaw lu mu xat-xat moom nañ laal sinap waaw. fan nga jógee ñëw fi Dakar. Dakar nga jógee. waaw ba nga départ. 21 lañ départ. démb 21 heures ba léegi. waaw suñu oto bi dafa defoon choc. dafa defoon choc. Mhm. Bambey après ñu obligé wàccee ñu. ay bëri ngeen def choc. Euh, trois heures du matin foofu lañ toog ba ay kii euh, onze heures yooyu après si lañ ñu utalee oto après amuñu sax dañoo si place Versailles lañ toog ñu ngi door ak si nii Touba. mais ba choc bi ngeen def météo. ñi ñi nekk ci ginnaaw ñi mbëkk suñu oto bi ñoom ñoo euh, am ay blessé tuuti rek mais ñun moom ça va. ça va diggante vingt et un ba léegi nga soog ak si Touba coono bi nga daj ci yoon. ba tey ñu ngi ci àll bi kay sonn nañ trop sonn nañ trop moom ñu ngi nii ba tey mënuñu am oto bu ñu yóbbu fu ñu jëm. si Touba sooyul. Ndaamaatu lañ euh, boobu ba léegi mënoon am oto bu leen yóbbu. ba oto. mais est ce que di ngeen gaaw amatul ndax yéen daa mel ni da ngeen toog pour noppal. sonn moo tax parce que démb ba tey lekkuñu naanuñu ñu ngi ci àll bi. mais bàyyi ngeen tamit oto fii Poso Mbaye ak Seydou yëpp dañoo yokk paas bi. dañoo yokk paas bi kay loolu kay xam nañ ko moom ndax ñun yàgg nañ màggal si. looy wax si loolu. ah looy si yokk paas ah, moom parce que màggal sëñ Touba bi mënoon nañ ci def xéewal rek mënoon nañ ci def xéewal mais mais sëñ Touba jar na ko rek moo tax. mais ak coono bi ngeen daj yëpp ñoom Touba fekk fi tàngaay bu metti bi. tàngaay bi moom fépp la moom fépp tàng moom mais ñun tàmm nañ tàngaay bi parce que yàgg nañ màggal si. Mhm. mais boo àggee fa nga jëm jàmm yàlla na la yàlla te si yoon jàmm ba nga àgg nan ngay waajalee sa màggal. ah nekk ci liggéey bi rek liggéey suñ bàmba moo ñu ñor ñun loolu moo ñu fi indi. Ah. loolu rek moo ñu fi indi. boo ko ñi nga xamante ne day ñëw pour Sinaab. man moom loolu indi moo fi man si waañ bi laay nekk ba keroog ba may ma pare dem ziar après dem ñibbiwaat loolu moo ma fi indi moom. bon tey su ma ne la woon tàggatoo wala lan ngay wax sëfoo si nga xamante ni ñoo si yoon bi di daw te instant yoon bi xat na lool. ñu daw ndànk boole xol yi parce que tali bi xatul xol yee xat rek buñ defee ndànk ñëpp dinañ ñëw si jàmm ak salaam Touba dafa sori ak Dakar surtout nañ def ndànk rek buñ defee ndànk ñëpp ñëw dara bañ a xew accident bañ a am ñëpp ñëw màggal si jàmm ak salaam ñibbiwaat si jàmm ak salaam. loolu rek la ñuy ñaan. merci beaucoup yaay si yow. ñoo ko bokk Kaolack. Kaolack laa jógee ñëw fii. diggante Kaolack ak ak Touba mu sooy lool coono bi nga def si yoon bi su ma la ko doon laaj la nga may wax. waaw métti rek mais lépp sëñ Touba jar na ko parce que ku nekk li naan lu ko jar moo ko jar sañ Touba moo ko jar moo tax jaral ñu def déplacement Kaolack ba Touba noonu la kaa bi demee. waaye yow da ngay interview wala da ngay jaay wala la. non man nag jaayuma damay liggéey waaw. bon euh, coono bi nga daj ci diggante Kaolack Touba mu doon lu lu métti lool tey agsi nga ba Touba fekk fi tàngaay bu métti métti. dëgg la tàngaay bi moom tàng na trop métti na lii sax maanaam ku amee estomac sax lii baaxul si yow daal mais daal lépp sëñ Touba rek moo ko def parce que jàmm rek mooy xew incha allah màggal moom jàmm rek a ciy am ba ba muy jeex. ngay jëm soriwul. non non fii lañ jëm Daaru Tamsir côté Jannatu. waaye yéen ngeen sa dafa yokk moto yokk euh, poso mbaay lépp a yokk. lépp yokk loolu moom chaque la màggal bu jotee lépp yokk loolu moom yàgg na fi te du moom dañoo xeer bu ñu yokkee tamit garaaw mën nañoo yokk xaalis bi lépp sëñ Tuubaa jaral nañu ko. looy tàggatoo. waa di leen jaajëfal rek ñu ñaan màggalu jàmm ñu ñëw jàmm ñibbisi ñi fi ñëw ñu ñibbisiwaat si jàmm loolu rek lañuy ñaan incha allah.